mi ngi noonu ñoo ngi Bakel Bakel qui accueille le président Ousmane Sonko Bakel a ngi nii Bakel a ngi nii xale Bakel génn nañ Sonko rek Sonko rek la ñu wax Bakel a ngi noonu convoi baa ngi avancé Bakel a ngi nii di fàttali nii yàggul lool dund nañ fi ay jafe-jafe waaye tey taxaw bi askan bi taxawu taxaw bi leen gouvernement bi taxawu moo waral tey ji ñoom ñëpp ñu génn ngir saafonte ak le chef du gouvernement sénégalais le président Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko mi ngi noonu premier ministre mi ngi fàttali ni jot nañ fee dugal huit milliards de francs CFA yoo xamante ne pour soutenir population bu Bakel la waaye itam bu Kidira ak bu Tamba ñi nga xamante ne ba Matam ñi nga xamante ne mbënd mi laal na leen mbënd mi jógee ci débordement nga xamante ne moom moo di dex bi mi ngi noonu Bakel la Bakel la exceptionnel exceptionnel et eh, d'honneur baa ngi nii di fàttali nii premier ministre nee na lu tolloog 42 milliards itam dinañ ko mobiliser pour soutenir ñi nga xamante ne moom mooy les agriculteurs ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ay lor-lor ci nga xamante ne moom moo di mbënn bi ak débordement bi mais ngi noonu Bakel ngi noonu exceptionnel accueil di fàttali ni bi yàggul dara li nga xamante ne moom moo fi amu di mbënn bu metti fii nii waaye itam benn parti Tamba ak Kidira État du Sénégal mobilisé huit mille huit mille milliards de francs CFA plutôt jox ko askanu di fàttali ni près de trois mille cinq cent mu après vous faites son bien s'il vous plaît hein. yoo xamante ne état bi jël na leen charge. Bakel noonu lépp ci prise en charge bu mucc ayib moo waral tey. et Bakel. Bakel est ce qu'on a pour recevoir existe. Isso. Koko mi ngi noonu mi ngi noonu Bakel ngi noonu di fàttali ni état du Sénégal dafa am taxawaay bu am solo bu mu def ci li nga xamante ne à travers le gouvernement du président du premier ministre Ousmane Sonko mu di jéye gi bi fi amee jéye gi jógee ci mbënn bi muy mbënn goo xamante ne moom moo impacté woon si dëkk yu bëri ak village yu bëri état du Sénégal à travers le gouvernement mobilisé huit milliards venir en aide à plus de trois mille sept cent ménages fii nga xamante ne ci fleuve bi la ñi nga xamante ne ndox mi dafa dugg seen kër yi tey boo seetloo tey accueil bii nga xam ni la population est aussi sortie pour dire merci au président Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal ci taxawaay bi ci même actualité boobu premier ministre daal di yëgle sànq fee ci Kidira que gouvernement bi dina mobiliser près de 42 milliards pour venir en aide yi nga xamante ne mooy borom tool yi les périmètres irrigués yi nga xamante ne ndox bi dafa dugg yàq fa lu bëri muy wane ni taxawaay bi état du Sénégal war a am ci askanam fii li koy jëlee Tamba Kidira Bakel Ourossogui Matam ba Podor ci daane maayo bi ñoom ñëpp état du Sénégal taxawu na leen di fàttali nii fii diggante Kidira ak Bakel près de 3700 euh, ménages mooy kër yoo xamante ne état du Sénégal mobilisé na xaalis yóbbul leen muy ceeb di dawlin muy denrée de première nécessité muy mbiru école muy mbiru yére pour taxaw ñi nga xamante ne ndox mi daa nangu woon seen kër yi donte na tey ñi ci gën a bëri eh, ndox mi dellu na ndax ci dex bi la jóge woon <coughs> Kailangan ng naroon eh. yes eh eh yes yes seetaan jënd leen seen kër Ousmane Sonko ñëw na dugg leen seetaan Sonko laale asalaamaaleykum Bakel Bakel dooleel ngeen gaa yi Bakel dooleel ngeen gaa yi ça devient compliqué mais mais président Ousmane affaire bi compliqué na mais mais mais Sénégal moo daje Bakel ou pas mais dafa mel ne Sénégal moo daje gars yi dañoo jógee xanaa Dakar jógee Mbacké ñëw Bakel wala gaa Bakel lañu non mais on est fiers on est fiers on est fiers fiers de cette forte mobilisation tàccu leen seen bopp tàccu leen seen Bakel Bakel Bakel yéen a ngi yéen a ci biir yéen a ngi ci biir on est très fiers vous êtes prêts pour une majorité pour le président Bassirou Diomaye Faye vous êtes prêts pour une majorité pour le président Ousmane Sonko Bakel Bakel comme comme ni ngeen ko xamee dañoo war a yegg ba te directeur de campagne bi moo koy rappelé léegi kon dañuy jox candidat bi mu wax au nom de tous les candidats bu defee bu ñu paree ñuy soogaa jox ki nga xam ni moom ngeen doon xaar boobu ba tey muy le président Ousmane Sonko. Là, c'est un, dé un, développe, un département qui est désenclavé. Nous n'avons pas de route. Le département de Baguel a un système de santé très faible. Et l'éducation aussi, c'est le socle du développement. Et nous voudrons que nos établissements scolaires soient équipés, relevés et que le personnel enseignant soit renforcé Le personnel enseignant soit renforcé et formé. Nous voudrons aussi un système de santé doté d'équipements et de personnel enseignant qualifié. Il est impératif de construire de nouveaux centres de santé, surtout dans les zones rurales, dotés d'équipements qualifiés et de personnel qualifié pour que chacun ait accès à un soin sans se soucier des kilomètres département de Bakel nga mun na ko Odom authentiques que ñoom la def Je vous remercie. jërëjëf kon ki ngeen doon xaar yegg si na muy le président Ousmane Sonko yegg si na ak la présidente Maymouna Bousso di wax aussi que boobu ba tey ay Boubacar Camara président Malick Gakou ñoo ngi koy bu baax a baax. madame ay Mbodj ak euh, Serigne Mbuub ak ñu bare accompagné nañu ci trajet bi kon ñoo ngi leen di nuyu ñooñu ñëpp aussi di nuyu aussi monsieur le de Bakel monsieur Sall di ko nuyu bu baax a baax di nuyu toutes les yi nga xam ni ñoom ñoo fi teew Bakel Bakel non bokk ngeen bokk ngeen jóge nañu Kidira ma foog ni Kidira wàcce na gaa yi ñu jóge Tamba ma foog ni Tamba wàcce na gaa yi ma jóge Kédougou ma foog ni Kédougou wàcce na gaa yi mais ma yegg si Bakel mais da ngeen yenu gaa yi ba ci kaw dóor ci suuf. kàddu gi ki nga xam ni moo tax nit yi ba ngeen di woote di xool fan la tollu ki nga xam ni moom mooy porter l'espoir de toute la jeunesse de toutes les couches ki nga xam ni moom moo war exécuter li nga xam ni moom ngeen dénk le président de la république le 24 mars ki nga xam ni ñëpp

président Ousmane ñu jox le président Ousmane mu mën wax yéen ñu continuer incha allah. Bakel asalaamaaleykum ziar nañ leen bu baax a baax a xam naa ni xaar ngeen lu yàgg waaye suba ba léegi yéen a ngi suivre bi ni ko présenté ci waxee foo dem rek day mel ni foofa la waaye y a une mobilisation exceptionnelle à boo xam ne boo ko méngaleeg situation bi nga xam ne moom la àdduna yëpp xam te muy situation bu Bakel di dund day multiplier cette mobilisation par dix Bakel maa ngi leen di nuyu di leen féliciter di nuyu la coordination départementale de Pastef Bakel tous les militants et les militantes ci xam ak ku ci xamul xam leen ni suñu xol sedd na ci yéen et je veux vous ci seen taxawaay ci la combat pour la révolution bi nga xam ne tey moo jur résultat bi di nuyoo ñi nga xam ne ñëpp nag ñëw nañu pour jàpp ci liggéey bi muy maire yi nga xam ne maireu département bi lañu doore ko ci meeru dëkk bi di Ibrahima Baba Sall waaye di ci teg maire Sori ak maire Diakoy Tunkara bu Moudéri maire Amady Ka bu Sinthiou Fissa ak maire Diadje Sawane bu Fissa Gàcceer ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax temps yii defar na def nañu déplacement ñëw ba Dakar seet si ma kon ñu ngi leen di nuyu leen ziare. di nuyu nag toutes les populations du département rawatina nag ñi may massawu commencé ci Bakel waaye teg ci waa Yafera waa Arundu waa Kunkani waa Kungani. waa Golmi ak waa Baalu ñoom ñëpp dund nañu li nga xam ne moom la ñu xam ñun ci inondation yi muy situation bu métti mbokki Bakel am na situation yoo xam ne bu amee ci réew ñu xam ni lii am na ku naan français français dégg la wolof dégg nga olof te dégg nga français ah population de Bakel ce que je dire simplement c'est des situations qui relèvent de la volonté divine et qui peuvent frapper une nation ou un peuple à tout moment. Quand ces situations arrivent, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, c'est de faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Et c'est pourquoi malgré mon adversité avec le président Macky Sall, vous rappelez que quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, j'avais accepté d'aller répondre à son invitation au palais de la République parce que pour moi, il fallait la sainte union nationale face à ce péril qui menaçait le monde entier. Et c'est pourquoi tous les acteurs doivent s'abstenir de politiser des situations comme celle-là. Et le plus important, c'est que seul l'État, seul l'État peut aujourd'hui être aux côtés des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des fins politiques, au point de créer des situations que nous avons vécues. Ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à Bakel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des Bakelois. Et c'est pourquoi, depuis que cette affaire est intervenue, l'État s'est donné tous les moyens pour être à côté des populations. C'est la première fois que vous voyez la survenance d'une catastrophe et qu'immédiatement le président de la République lui-même, toute affaire cessante, se déplace pour venir aux côtés des populations, pour constater lui-même et pour essayer d'apporter des solutions. Pendant 12 ans, eux, ils ont été au pouvoir. On les a jamais vus se déplacer pour, pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement, on va en apporter. J'ai annoncé lors du, de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les, premières, les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter dans les zones impactées, qu'il qui aient des problèmes pour se nourrir ou pour se vêtir ou pour se protéger contre les moustiques ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations, toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Bakel, vous savez très bien, vous qui êtes nés ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crue sont des phénomènes naturels. c'est parce qu'il y a de fortes pluviométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur et quand on reste quelques années à, fort, à faible pluviométrie, les populations ont l'habitude, ont tendance à venir construire sur une partie de ce lit majeur. Mais à chaque fois que la pluviométrie reprend, le fleuve a tendance à reprendre son lit naturel et c'est ça qui justifie les crues On a vu en Mauritanie, un peu partout dans le monde. Vous avez vu s'est passé il y a une semaine en Espagne. Les crues ont toujours servi aux populations parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se tasse, mais être auprès des populations pour vous accompagner pour que chaque Bakelois, chaque habitant de Kidira, de Goudiri, en de toutes les zones qui ont été impactées, puisse sentir la présence de l'État. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydraulique. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Bakel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares. Parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux lorsque le barrage risque de céder et que les gens sont obli obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Cheikh Tidiane Gueye et la dame qui est directrice générale de l'Office national des lacs étaient ici à Bakel pour faire la prospection pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation qui peut être impactante, la transformer en opportunité pour Bakel, pour tout le département de Bakel, mais la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il important. Nous savons les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout parce que pendant 64 ans, des gens se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leur propre intérêt et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus riche du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer, La Falémé est ici à côté. Et il y a du fer à la Qu'il y a cinq ans de cela, ils avaient signé avec une entreprise turque et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendu faire notre conférence de presse, dénoncer cela. Et on s'est bien battu au point qu'ils ont reculé. Et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact. Et nous allons l'exploiter au profit des populations du département au profit des populations de la région, mais au profit du peuple, du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons du manganèse. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette, cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce dont on a besoin pour construire une plateforme industrielle, il y en a ici à Bakel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050. Nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant à 4 de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai je l'ai décrit, je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tambacounda. Et c'est pourquoi Même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falémé, qui sera un barrage à la fois électrique, mais également un barrage hydraulique, et qui va permettre de régler définitivement la question de l'orpaillage clandestin tout le long de la Falémé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé. Nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irrigués aussi bien en saison sèche qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi population de Bakel, ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même. Jeunesse de Bakel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement Vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui Qu'est-ce qui nous manque C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le Je n'ai même pas parlé du volet agricole, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais tout ce qu'on vous demande pour parachever le contrat moral qui nous lie à vous, c'est de nous donner une majorité écrasante, minimum 150 députés, au soir de 17 novembre, pour permettre au président Bassirou Diomaye Faye de gouverner, de prendre les lois qui doivent, qui doivent transcrire les aspects économiques, juridiques, administratifs, sociaux de, de, du programme qu'on vous a présenté. pour pouvoir aligner le budget à partir du budget 2025 pour pouvoir aligner le budget. Laissez monsieur le maire arriver, s'il vous plaît. Laissez monsieur le maire. Calmez-vous, s'il vous plaît. doucement doucement yéen ñëpp xaj ngeen fii buuxante bi jaru ko ku nekk foo taxaw daa dégg yi nga xam ni ñoo ngi la koy wax donc donc dal bu baax a baax ñu continuer ñu continuer waxtaan bi bu ko defee ñu continuer incha allah voilà am na am na programme bu ñuy xaar kon mi ngi waaj daaneel ñu déglu ko mu pare Bakel Bakel Bakel Bakel gaje ngeen gars yi ah, man foofu laa toll <laughs> gerçekten kontenliymiş. Bienvenue, monsieur le maire. Je suis entré dans votre ville sans vous apercevoir. Ce qui est une, un crime de lèse-majesté. Donc j'ai demandé après vous, en tout cas là. Ce que je voulais dire, pour terminer mon allocution, je vous ai dit, je vous ai parlé du hub industriel que nous voulons ici, qui sera accompagné des infrastructures qu'il faut. Certains ont parlé de routes et de chantiers. Nous avons un ambitieux programme de désenclavement des régions et des départements périphériques, surtout les zones frontalières. J'ai toujours dit que les zones frontalières doivent être conçues programmée par rapport à la capacité que nous avons de capter les économies voisines plutôt que par rapport à la centralité de Dakar. Avec des de sorte que c'est les voisins qui devront traverser pour venir dépenser leur argent ici. Et c'est pourquoi chemin de fer par rapport à l'exploitation du fer de la Falémé. Le chemin de fer qui doit conduire minéralier et qui doit permettre de pouvoir exploiter ce fer dans les meilleures conditions après avoir été transformé ici à Bakel avec le pôle sidérurgique de le pôle sidérurgique qu'on veut dans le pôle sud-est. C'est cela l'offre politique du président Bassirou Diomaye Faye pour Bakel. et pour le pôle. Et c'est pourquoi, tenant compte de tout ça, les et j'ai qui la sera ainsi, doivent nous donner la possibilité de gouverner, de prendre les lois qu'il faut, de faire réformes qu'il faut, d'aligner le budget 2025 sur les priorités de la vision 2050, de ce plan 2034, mais surtout de l'aligner sur le plan d'action gouvernementale 2029. C'est cela le principal enjeu de ces élections. Est-ce que Bakel est que Bakel est prêt Est-ce que Bakel est prêt est-ce que Bakel est prêt à quoi Est-ce que Bakel est prêt D'abord, d'abord, d'abord, avec tous les dignes fils de Bakel, avec tous les militants et les militantes, avec tous nos partenaires qui sont venus nous rejoindre, avec la valeur ajoutée qu'ils vont apporter, notamment M. le maire et tous les autres maires, avec toutes les autorités qui ont été, qui ont promues depuis que le président Bassirou Diomaye a été élu président de la République et, par, et a passé pouvoir. Ici, dans le département Bakel, il y a au minimum 4 ou directeurs généraux, dont M. Koulibaly ici, qui ont été promus. Et il y en aura encore et encore, parce que le potentiel humain qu'il y a ici, nous le connaissons. Est-ce que l'ensemble de ces acteurs sont prêts aujourd'hui À d'abord, écoutez-moi bien, à d'abord donner les deux députés du département de Bakel à la liste PASTEF. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça Mais cela ne suffit pas. Parce que nu allons vers une élection boo xam ne raw gàddu la celui qui premier même s'il a 40 pour cent il prend les deux députés donc li ma wax noonu mooy jox leen ñu député ñaari député dëkk bi mais en dehors de ces deux députés là si on a pour cent et que tous les autres se partagent, qu'on y am 5%, ni am 10%, on prend les deux députés. Mais moi, Ousmane Sonko, 40% d'Oyuma, moi je veux avoir 75% à Bakel. Est-ce que vous êtes prêts à nous donner 75% Est-ce que vous êtes prêts à me donner 75% Vous avez pris l'engagement ici. Et je l'ai dit et je le redis. il y a un concours qu'on un challenge. man dama leen assigner benn objectif yéen vous dites cent pour cent man je vous demande uniquement soixante quinze pour cent léegi nag léegi nag dafa am benn challenge bu ñu lancé benn concours la entre les différents départements du Sénégal vous savez qu'il y a 46 départements au Sénégal plus les départements les circonscriptions de la diaspora les dix premiers départements suñu xoolee score bi dix premiers départements yi dañuy am une prime spéciale une prime spéciale boo xam ne on va donner ça aux dix premiers départements donc dans moins de quinze jours le dimanche 17 incha allah dans moins de quinze jours à ci dinañ leen woo nag ñu leen yéen Bakel yéen waa Bakel vous avez fait combien su ngeen ma nee 25 pour cent leen su ngeen ma nee 50 pour cent bokku leen su ngeen ma nee 60 parce que nag gars yi seen yaram dafa tànga ah. partout je suis passé gars yi seen yaram dafa tàng te xam ngeen ay département yu mel ni Mbacké yu mel ni Dakar yu mel ni Ziguinchor yu mel ni Bignona ak yeneen yu mel noonu ñoom déjà. tàmmal nañ ñu ay 70 pour cent ay 85 pour cent donc yéen da ngeen am da ngeen war a def remontada remontada ngeen war a def est-ce que vous pensez que Bakel mën na def remontada li ci kanam raw yu bët on se donne rendez-vous dans 15 jours incha allah à cette heure bu ngeen def remontada nag dinaa ñëw ak carton rouge bi. bu ngeen defee remontada bu ngeen defee remontada bi nag vous aurez une prime boo xam ne yéen waa Bakel di ngeen ko gis ba mu mat sëkk et je parle sous la surveillance de monsieur le maire de tous les directeurs généraux qu'on a nommés et qui sont des vices de ce kon lu neex di li duuf lépp xajul ci cin li ñu ngi di gërëm di leen sant et on va vous demander la route parce qu'on et continuer jusqu'à Ourossogui vraiment kontaan nañu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.